waxtaan wi président Macky Sall woote keroog bi mu jullee ba noppi korite gi dellu baamtuwaat ko waa F24 ñoom loxo boobee mu tàllal nanguwunu ko observateur mënu ko xamal yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne dañ caa teg sax di dëgëral fas yéene dajaloo fukki fan ak ñaar ci weeru mai ci ndakaaru ngir tàmbali xeex bi ci lépp lu leen yoon may démb cim ndaje seen biir lañ jël boobeeb dogal laas moom ci weneen wàll di yéemoo ko seetlu ñàkk teewu Khalifa Ababacar Sall ci moomem ndaje terewul ndaje mi am ci yéenekaay bi di réew mi jàng ci ne rëdd yi nga xamante nag waa F24 nañu ko fa président Sall ne moo leen gën a yitteel bokk na ca moom président mu tegaat ci suuf ba faw waxi troisième candidature libéré seeni ñoñ ci kaso bi ca ñu jàppe leen ay détenus politique la leen yitteel ñu ne bokk na ci ñoom waa f moom président mu daal di bañ caa bokk élection yoo xamante ni yu leer lay doon ñu dul beddi kenn keneen ku dul dem nag te moomam ndaje président Sall woote di njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Euh, ñeel moomem ndaje du mujj su may ab baara yëgoo ci lu dul doon daray njariñu askan wi di lu nu jàng ci la tribune l'info ne F24 ñoom tàmbali nañu xeex bi àjjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mai lay doon cim ndaje ngir jaamaarloo nguur ak président Macky Sall fexe ba ndengeeñ ko ci waxin ngir mu yàbbiwaat ñu ne waxi troisième mandat f ne ci ay action yu yoon maye ca lalu ci jàmm dinañ woon àddina yépp ne seenug ñor ci wàllu démocratie wees rek ci élection xeex bi it ñu ne ngir ñu féexal nag seeni yi ci kaso bi lañ seenu tukkim Ousmane Sonko ca Gambie ca yoon tere ko def lu ni mel ci lu mu yëgluwul ak ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi laam-laamee dem gi naan ay photo yu màgget ak yeneen yéenekaay bi ne lu wér la demoon na fa source a teg ci ne dugguleet nag ab njiitu politique di dëkk yoon fii ci réew mi fàttali nañu bu ci mel ni bu usmaan Ngom ak Oumar Sarr dañuy des ak source a ak député yi fi ne di quatorzième législature bi ak seeni jafe-jafe amee prêt ci banque yi li ko waral di banque buy lebal doomu aadama day fekk am yaqin ne kii am na mënuñu fayaat ko te député yi ne banque yu bari dañoo jàpp ne duñu fi def juróomi at waxtaanee presse bi ci Sénégal ak yéenekaay bi di la mandat bu ko jàppee moom quatrième pouvoir bu nu jàpp otage li ko waral di place ba Sénégal ne faax toog ci classement RSF gi ci wàllu liberté du la presse téeméeri lu place beeg ñeent dandu ginnaaw fanweer ak benn ci place enquête ne liberté gi ñeel presse bi ci Sénégal nag du lu yomb ndax ñàkk jaaroo taal gi léeg diggante nguur geeg journaliste yi ca moo ne ci lu yàggul dara Sénégal ci fànn woow royukaay la ci woon ministre Abdou Karim Fofana yore kàddu gouvernement bi moom ci enquête ba tey ne Sénégal nguuram ku respecter liberté de la presse la par principe di lu gëm ay ragali classement ak yeneen Mactar Sylla kàngam macha allah ci métier mi moom gis ne dossier yi ci wàllu yoon la état bi war a yàbbis lëf yolomal ngir ak dal waaye colonel Vardini ne waaw waaye na fekk journaliste yi ñoom ci seen liggéey di ca boole responsabilité presse boobee nag guy gu mag daanu ca Mamles Camara direct news jàpp ne paatu la guddul paatu ne moom Mamles Camara dugg na ba faw ci panthéon des immortels président Macky Sall ne Mamles Camara la woon ci wàllu xalima ak moo waral it mu jël turam jox ko daara di sësti dañuy tas nag jagadi lool jamono yi ba njiitu réew mi ci boppam sax waxtaane ko keroog premier mai observateur jàpp ne ci lu yàggul nag faaw dogal yu mag jibee ci kër googee maanaam ak tàqalikoo genn ci liggéeykat lim na ko ci ñaari junneeg juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn di départ yu nu nar a waxtaaneeg yu lalu ci wàllum cooxe koom-koom ñu jeexale làmb jéeg mbaqus bi promoteur bi di jamaïcain borom jam production baaxee amateur làmb yi Sénégal ba mbaax jee rëg-rëg mu ne dina ko tëgg làmb joojee laata janvier 2024 di lu nu jàngee ci sunu làmb